doon fukki junne at cinquante mille ci kaw te laalul lu ci kaw ci at yooyee nga xam ne sunu atu borom la nga xam ne seen benn bis mooy sunu cinquante mille ans mu dellu si fu mu jóge woon naawaat juróom fukki junne at jëm ci suuf te laalul ci suuf mu dellu ci sunu borom daanaka yàlla li nga ma doon naawloo de naaw naa ko juróom fukki at naaw juróom fukki junne at naaw naa ci kaw te laaluma ko juróom benn fukki junne at naaw naa ci suuf te laaluma ko su borom daan xam nga ci lan laal naawloo mu ni ko déedéet mu ni ci gémmiñu malaaka bu ñu wax raw faal kon léegi nag ñu nañu xalaat malaaka boobu nga mu day malaaka bi ñaar a koy yëngal su déggee sunu kàddu borom day xëm su déggee sunu tur borom malaaka yi romb wax ko day xëm beneen ñaareel bi di saa yu déggee xasaayit Cheikhul Xadim yi malaaka yi di romb di ko riim dootul anteeg sagom ni ñoo def lay def waaw daanu nit tëll àgg fu mu jëm kon sunu yàlla dimbalee ci mbaaxam indi ñu lii jaar la ci cheikhul xadim mu xosaa indi kon nan lañ ci góor góorlu bu baax a baax te luñ ci góor góorgóorlu dayul te duñu war a waggar xasida yi xam ni buñ koy tàmbalee ba mu muy jeex dara dara dara xaju fi lu dul waxtaan lu dul jàng xasida yi lu fa waay wax lu mu rafet rafet rafet xasida yee gën sa wax te am na lu ma bëgg attirer attention mbokk taalibe yi lenn ci mbokk taalibe yi ndax gis naa ñu tàmbalee xewal jël ay nataal di ko teg ci kaw foto di kaw xasaayid yi am na ñu ciy dem mbay di jël seen nataalu bopp di ci def walla seen nataalu waajur di ci def walla nataalu ci guddi àjjuma bi ci Masalik dafa am ku ñëw dema ziar yore xasida ma gis ci mu def ci nataalu xale bu jigéen ma ne ko lii lan la lii loo ci jublu mu ne ma ay benn soxla bu nekk ca dëkk ba maanaam da koy bëgg ma ne ko nga bëgg ko ba tekk ci biir kaw xasida Sëriñ Tuubaa yi te loolu mi ngi commencé di di di am empleur waa maa ci ciy attiré attention mbokk taalibe yi képp ku ko gis ku koy def tere ko ko képp koy gis ko koy def tere ko ko xasida yi kenn sëriñ bi waxu ci kenn ku dul sunu borom ak yent bi sallallahu alayhi wa sallam gaaral ci may yuñ ko may faqat kon waruñu jël xasida yi di ci def lu mel duñu war gën a fonk xasida yi te gën ko waggar loolu maa ci attirer attention mbokk taalibe bi yépp ñu gën ci góorgóorlu am na koo xam ne sax nataalu waajuram la ci def waaw te waajuram bu jën te sax mu sóoruwul nag waaw xool na gis nga loolu lu mu yéemee kon dañ koy dañ koy dañ koy reeteet fu ñu toll ngir ña koy def ñu bañ ci dellu ndax suñu bàyyee liy raam ci ñag bi la jëm waaw gis nga jàngkat yi léeg-léeg ñu jàng xasida yi nga xamante ne ñi war a toog déglu ko xam ni lii waxu mag la te sëriñ bi wax ne saa yi bind xasaayid yi maanaam day mel ne du ñuy rocci sidditam ci biir yàpp yaramam ndax tar gu mu daaw di tar ak métti gu mu daaw di métti bu ñu defee ne xuruf yi dafa doon génn noonu rek mu yomb ci moom déedéet loolu demewul noonu nga gis nag kuy jàng xasaay di ay jëmm taxaw di ko fecc xam loolu rafetul loolu rafetul góor ak jigéen di àndoon di ko fecc man su ma doon jàngkat xasida yooyu su ma gisee lool danaa dagg foofu leer boobu jël leer goo xam ne kenn du ko mën taxaw di ko fecc waaye dañuy defa di jàpp nañu mbir di gën a yëngal baas bi su ñuy toog di wax baas bi di yëngaloon nañ ko bi mbir demewul noonu waaw mbir yi demewul noonu xasida yi jaamu yàlla gu wér la te jàmm yàlla danga nga koy def nag su su dañ ko war a defee nga xam da ngay sell sellal ba noppi jublu penku te diggante ba nga koy tàmbalee ba ba nga koy pare daray caaxaan xam ñu ci kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax ñu wax tuuti nag ci xasida yi ñu gis ñu def ko fi waaw gis naa ñu def fi muqaddamatul xidma di ñu wax ne muqaddamatul xidma juróom-ñaar fukki junney jant yi ñu muri la xasida la gu nga xamante ni fépp fu mu fanaan sañ ngaa kitaabu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fanaan na fa ak cheikhul qadim salaatu boo ci jàng suñ borom bi sàkk ci malaaka bu lay jéggalul say bàkkaar te di la tinul suñu borom ba bu ñëw wal buft bi nit ki su faatu woon sax du tey malaaka yi ñoo ngi motel di ko ñaanal fekk waluñu buft bi te Serigne Saliou wax na ni ku ko jàng ci benn jataay lël dal yàq teg sa bopp waaye ki nga jàng ci benn jataay te dara jotul la képp ku la jox loxo sañ naa kitaabu ni jox na loxo Cheikh euh, euh, jox na yonent bi loxo yonent bi sallallahu alayhi moo tax mag ñi daaw ñu nangu di jël muqaddamatul xidma di ko def fi nga xamante ni foofu lañuy fanaan ak seen soxla ndax jimb yooyu dafa fa teew guddi ak ban xasida lañ fa def ah wa kaana xaqan alayna nasru muminin ku tedd ki dafa ne lu ma am fii ci wakkaana xaqat laa ka amit daal di fetta su ëllëg loo fa am ci wakkaana xaqat laa ka amit wakkaana xaqan régulateur la maanaam lu ëpp daf koy wàññi ba mu tolloo lu manqué mu yéege ko moo tax lu taalibe war a durus war na ci boole lu mu durus durus war na ci boole wakkaana xaqan soxna may duñ ko mos a ziyaar fii liberté de mu daal di ñu ndeysaan sëñ jëm Jeylaani Gasama bale mi ngi ci woon sëñ Amari Fall ma ngi ci woon sëñ Ibrahima Kam ma ngi ci woon ñu jàng juróom koro jàgg nañ fa juróom-ñaari yoon euh, assiru bu ñu dugg see soxna si dafa ne ci réewam ju neex ji daal xanaa du leen wax dama bëgg assiru daal di ci waxtaan bi mu laaj na ngeen def ak wakaana xaqat ñu diib diibal mu ni di leen ko jàng fu ngeen toll xanaa xamu di ni wakaana xaqat moo tax ba balli tàkkul ci réew mi daal di suba su bi yëpp maase woon daal di ñu jàng wakaana xaqat bale jant di sokku nekk di nga wut foo ruur sa bopp te it ñu wax ci benn mbir rek moo di sirru sootul ixlaas mooy daw ci wakaana xaqan ndax soo jëlee ñaareelu bayit bi ku yaa waliyu yaa qadiru yaa nasir lil muminina innaka alhaadil basir soo dindee turu yàlla yooyu soo ko àndadee daf lay jox 972 mu jàpp suurtu ixlaas soo ñëwee ba ci yaquudu lii kun fa yakunu xaaji min ka bila xiqnin wala taxaaji soo ko àndee ne dafa lay jox xaqiqatu suurtu ixlaas ndax junne la la jox ak téeméer ak ñaar fukk ak ñaar 1122 fale nag sëriñ bi dëkk ci fan akramani bi qul huwa allahu ahad rabbi wa lam yakun lahu kufan ahad xoolal bayit bi maxa balaay maham rani bi rida tanqaanu li agradi duñu ne weer su feeñee weeru wolof su feeñee nga nga jëkk nga soog a kaa gis xool ko di ko jàkk di wax bayit bi maxa balaa i wa maxa amraad yi bi rida tanqaanu li axraad yi lim bu la soob ba weer woowu di dee insha allah suñ borom dana gaaraan sa bakkan doo ci weer woowu lépp luy musiba ak balaa yu ci wàcc suñ borom dan la ci musal te soo àndadee bayit boobu dafa lay jox deux mille deux cent vingt six ñaari junne juróom-benn téeméer rek ñaar fukk ak juróom-benn soo dalee ci alxuraan moo jàpp laylatul qadri xayru min fi shahri te soo ñëwee ci fatiha soo nee bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi diin iyyaka na'budu nga yem foofu moo tolloon net ak bayit boobu kon wa kaana xaqan yéemu na ak ban xasida lañ ci bind jaalibatul maraaxi bi lu ñuy wax ni ku tarbiya Sëriñ Tuubaa rëcc jàppal jaalibatul maraaxi bi na sëriñ bi doon tarbiya mag ñi noonu la lay xasida dëgg di tarbiya fu sëriñ bi daaw di yóbbu mag ñi foofu la lay xasida dëgg di yóbbu moom jaalibatu maraaxib pour yàlla bu ñëpp di wër sëriñ bi daf ko def ci biir jaalibatu maraaxib ndax suñu borom mooy huwa al wal aaxir wal baatin tur feeñ ba ñu bare am ñu ko xam moom la sëriñ bi dugal ci biir jaalibatu maraaxib mu jël nag baatinu tur wa nga xam ne soo ko àndandee allahu la lay jox fukki yoon mu daggate ki ci ñetti bayit kon nga gis ni saa yoo koy jàng xasida gi nuuru ilaahiyal ba mu jeex tàkk fu njaamu yàlla di yóbbu góor yàlla ba mu yàgg fa xasida gi nan la fa yóbbu ci sa digganteeg sa borom moom jaalibatu maraaxib sëriñ Waliyu Géey dafa dëkkoon euh, waagu ñaay muqaddam bu mag la woon na mu fa daaw di dem mu mu daaw di ndax dégg gu mu dégg arab mu mu daaw di tëralal yenn téere yi te it noonu la déggee woon turu yàlla ba mag ñu bare duñ fa daaw di ñëw di sàkku turu yàlla mu leen koy jàngal bis mu daan di ñu ci jaalibatu maraaxib la ñu nekk de bis mu ñu man de yéemu naa am na gone Baay Faal boo xam ne su nekkee ci pays yàlla yi saa yu fay ñëw riir gu tar la fay ñëwee te su ñëwee dana robb dem fu nga xam ne ñun ñii sañu ñu faa naa ko nag waaw ah, taw xamal na ma ci koñ bii la dëkk di ko nettali di wax xale bi nu mu mel am ci mag ñi ku ne kooku de xam ne naa kër diw la dëkk mu ne su ngeen ko gisee indi leen ma ko fii ma laaj ko yàlla dimbale ma bis bu mu xatu tànk bi di yow maa nga foon mi ngi def rasaam sol pantalon jiiram ak chemise ëñ loxo yi. jël benn côté chemise bi braay ko ci biir pantalon bi ngi takk bagage yooyu ay ay pënaak ay jaaroog bari yu mu takk ba mu ñëwee ku nekk mu jox la loxo góor gu ma liyu eh, daan di mu toog mu ne que sëñ géey loolu la ko wax mu ne yow de yaa ñuy romb ci pays yàlla yi ànd ak riir mu tar tey dem fu nga xam ni sañu ñu foo yegg ban turu yàlla ngay jëfandikoo ba yegg mu ne ko man wirdu benn tur yàlla mu ne ko looy jëfandiku mu ne ko man jaalibatul maraaxib laay jàng xoolu fu mu ko yóbbu sëriñ Jaw dafa ñuy nettali bu ñu nekkee ci daara ja nit ñoom ay taalibi sëñ eh, Mbàkke soxna loolu lañu yal yàlla yokk leeram nee dafa amoon ci daara ji kenn ci gone yi jaalibatu maraaxib la doon jàng waaye àggoon na ci su ko nit rombo day wax kii de ñetti fan ak a dese mu faatu su ñetti fan yu jotee kooku day faatu bu ci def yooyu ba ñu bis ñu ñu nettali sëñ Mbàkke Soxna Lo mu ree ba tëdd ci pliam daan ni kooku de kii de diw de day liifante rek ci xasida gi waa léegi kuy liifantu àgg foofu su mokkalee fu mu jëm kon dañu góorgóorlu bu baax ci xasida yi jazbul xulóob dafa am bis ku tedd ki tëju ci keesam daal bu ci kenn fekk si am génn jëmm ju dugg si yaa ngi lool àgg ci kaw leer naññi romb mag ñi jëm ci kees gi te mag ñi kenn mënu ko wax ni bul dem foofu ndax ku fi tedd ki neen bu ko kenn fekk si bu mu dugg see ba dugg ci kees gi fu sëñ bi nekk bu ko sëñ bi ne jàkk dafa yéemu ci moom ndax li mu yor moo ko war a joxe te xamul fu mu ko joxe sëñ bi lu ko jaaxal nag day wéetoog boromam bu sëriñ bi day bëri jug jës bul xulóom moo ko déy daa nekk kii ne lu mu yor ñoo ko jox te waa ji kat benn bayit la ci amoon li jami na zahiri wa batini bi tahiri yaa maaxiyan kabairi bi jaahihi wa lamam waa ki jàng jës bu yëpp nag fu muy toll ci boromam loolu lu jar a seet la matlabu bu yi ndax jamono ji jàngoro yu bare na lool képp ko nga xam li lu tubaab di wax les maladies incurables ki nga xamante ni day feebar feebar bu nga xamante ni tubaab dafa ni kenn mënu ci dara kii du wér la bu yi mën na ci dara ndax soo jëlee aay bi wa idha maridtu fa huwa yashfini nga def ko limu 236 mooy kun fayakun nga jàng xasida gi ba ci may may fàtte sax yaa barru yaa latiifu yaa muaafi yaa man lahu amrul wara yaa shaafi soo fa ñëwee nag baatu yaa shaafi boobu ngay def junne téeméer fukk ak benn bayit bi ci topp andil shifaak makaana daa i wala tuamil naa bi libtilaay nga def ko téeméer ak fukk ak benn àggale xasida gi waaye nag da am dégg-dégg wa dum ali fil masaa wa sabaax faxli santana shifaul falaax kon da nga koy def suba ak ngoon saa yoo ko defee da nga koy ëf ci ndox naan ko wala nga bind ko def ko saafara di ko naan wallahi feebar boo ci jublu doo ko doo ci faatu feebar boo naru faatu doo ko def waaw ci mën nagu sifa yi dañoo jëkkanteeg waxtu wi ndax jàngkatu xasida yi ñuy jox leen astaxfirullah bihi di ñu wax ni wëlu yàlla bu mat ba ñu tàmpee ko mbokk ci kumbal yi su toogee jublu penku def soixante-dix mille astaxfirullah suñu borom bi xamal ko ne nangul nan la yow nga toog fale ci sa keppaar jàng benn astaghfirullah bihi wat ko ci yool benn yoon nga jàng ko wat ko ci yool waaw nee nañ iblis sax su ko jàngoon suñu borom di jéggal ko ak nu mu dëgëree bopp mafatixul bichri lu tu gàttal rek wax di wahdi siraata almustaqima kulli wajal kathiran lay funa kulli saa yoo koy jàng ba àgg foofu soo tabjee def ko ñaar fukki yoon jàll soo tabjeewul daf ko ñaari téeméer jàll di nga jub te loo jur dana jub te it loo jurati waliyu lay doon feeg ba wàcc loolu loo jur walti waliyu lay doon te saa yoo wéetee jàng ka même soo xamul sir moom sirubin soo gisee ñu koy wax rek pour nit ñi gën a xam saa yu ñu téye xasida gi gën a xam lu nekk ci xasida ba daañ ko waggar ba suñ koy durus mën ko durus ak teewlu waaye saa yoo ko jàngee ba pare ñu jéggal la say bàkkaar soppi la ko defal la ko soo génnee ñeent fukki nit yoo dajal suñ borom bi jéggal leen ci jéggal doon lu jéggal te soo yoo koy jàng ba xasida gi wuyu la yowmal xiyaam ñeenti malaaka yi di jël di leen diri jëme safara sañ nga leen dangale ramm ci loolu sopp suñ borom da ciy ànd ak yow moom ma fatxul miski saa yoo koy jàng wuli yu nekk ci sa jamono yëpp seen darajaat ya ñu yor su borom dan la ko ràng bi laa tazalzulin ci lu ànd ak rëng-rëng doo yëg ni sax ñoo la koy jàng ñoo la koy ràng zadul musaafir pour ñu bëgg ñu tukki soo jëlee suuratul isra yi ay bu njëkk bi subhaanallazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa ba ci basirul bi nga wird dëkk soixante di fois jàng zadul musaafir ñaari xasaayit la rek fekk wàccoo ko di ci yéene tukki incha allah dem fa nga bëgg a dem bu soobee yàlla te dara du la téye te saa yoo fa demee dinga nga am yóbbal te di nga indaale dara kanzul muhtadin nee nañ saa yoo teglee ñeent fukki guddi di ko jàng bépp karaw bu nekk ci sa yaram day sàbbal boromam soo saxee ci njàng bi daal dem bay di dégg sàbbal bu ñuy sàbbal sunu borom boobu Kanzul Muhtadir Taysirul Asir li ñu wax ni juróom-ñaari abyaat yu jëkk yi bu ci sëriñ bi bind suñu borom da koy xëyu wax ahmadu mu ni ko la may mu ni loolu nga bind nangu naa ko tàmbali foofu ba xasida gi di jeex balay sëriñ bi di bind la koy suñu borom di wax loolu ngay bëgg bind nangu naa ko moo tax saa yoo ko jàng ba ci aminu yaa rabbi bi xurmatil jidal wa xurmatil quran wak fi nil jidal taxaw fa nga def ko téeméer yoon ak fukk ak ñeent xam nga saa yoo jàngee xaside gi am nga limu am nga kaamilu alxuraan bu ñu nangu waaye soo ko jàngee téeméer ak fukk ak ñeent da ngay jël 114 boobu multiplié par 114 yu saaru alxuraan mu wax jox la nombre kaamil yi nga xam ni am nga ci jàng bu nga ko jàng te sun borom nangu la sindiidi mooy sulubul firdawsi xam nga sa euh, xasida yu sëñ bi yéeme nañu lool xam nga waftax lana kulla baabin kunta faatixahu li saalixiina min alxayraati yàlla soo dalee ci alxuraan saalixiin mooy ñan mooy yonent yi kon yow yàlla yonent bunt ya nga leen ibbiloon loolu lay sëriñ di ñaan suñu borom bi defal la moo tax siddiq di ngeen nee nañ kuy toog di jàng siddiit fa ngay toog di ko jàng amul jëmm juy taxaw ci kaw suuf te ëpp la dara jëf suñu borom waaw defe naa xëy na doy na ñu yemale foofu waxtaan wi rek waaw tëjëk ak nuuru daaree ni dañuy wax ni nga yéene jàng nuuru daayira yéene rek tey de am naa yéene jàng nuuru daayira yéene googu duñ koy jëm yéege ba mu tolloog jëfu wali yu gën a mag ci sa jamono saa yoo ko jàngee nag jàngoom duñ koy yéege ci jëfu yonent yi moom nuuru daayira yi duñuy wax aynul anwaar dafa ne moo nekk ci biir nuuru daayira bi teen la bu borom bi sàkk te dara taxul mu sàkkoon ko lu dul yonent yi saa yu yonent demee ba tëdd di dallu ruuxam su génnee ci jismam foofu la daaw di dem di jàng ci sunu borom lu nekkul ci ay feggu nee na gis nga cin lu muy wañaxe noonu la leer yàlla di wañaxe ci biir ci biir ci biir ci biir teen boobu sunu borom mu ko muurale ak benn aaya moom la ko wërale allahu nuuru samawati wal ard masal nuurihi ka mishkaatu fiha misbah nul misbah fi zujaajatin zujaajatu kannaha kawkabun duriyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyatin wala garbiya yakaadu zaytuha yudii'u walaw lam tamsashu naaru nuurun ala nuurin yahdi llahu li nuurihi man yashaa wa yadribu llahu al-amthal linnaasi wallahu bi kulli shay'in alim nee na aaya boobu la wërali teen bi te benn xaraf ci te aaya yooyu boobu buñ ko bindee suñ ko tegee ci kaw suuf suuf attanu ko ndax rëy gu mu rëy nee nañ wallahi alazim nee nañ bu nga xamante ni yonent yi sallallahu alayhi wa sallam sunu yonent bu tedd bi wàcc na ci la sunu borom bi tëj teen bi ñoo ngi koy ibbi bu xasida Cheikhul Xadim yi xewee ba xam ni ku koy bind ki koy jàng ki koy yëkkati saa yu ñu dalloo seen roox su jógee foofu la dem <laughs> ah, incha allah kon nuuru daara ni xasida gu yéeme la tuxfatu mutadarixin fi tawassuli bi asmail mufaddalin dafa bokkoon ci xasida cheikh maam cheikh ibrahim tuxfatu soo wàññee ab yaat yi cinquante-huit ab yaat moo jàpp tur yàlla bu ñuy wax mux yi ku koy jàng ba xasida gi wuyu la suñu borom dana jël siru xayaat tekk sa lox te siru xayaat ku ko yàlla jox new su tëddee soo ko dee jugal bu jug bàmmeel bu raaf soo ñëwee fëgg borom bàmmeel bi soo ko woowee mu wuyu la soo ko laajee ku mu doon mu wax la soo ko laajee ci mu nekk mu wax la su nekkee ci mbugal soo ko jàngale tax fan suñu borom bi jéggal waaw juróom fukki sëñ Ablaye daf ñuy wax ni juróom-ñaar fukki wël yi suñu mayoon yàlla ba ñu dégradé leen ci guur yàlla gi kenn di jàng tuxfat kii laal ki kii laal ki kii laal ki ba ñu laalante su daan pare ñoom juróom-ñaar fukki yëpp seen wilaay dellu siwaat ci saa su ci ñoom bayit bu jëkk bi alhamdulilahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda bada soo ko àddee daf lay jox mille deux cent soixante yanaara gu ci bihi bi soo ko ci boole mu jox la mille deux cent soixante soo ko soo ko xaajee ci digg ba mu jox la six cent trente cinq mu jàpp wa rafanaahu makaanan aliyan waaw moo tax ku koy jàng waaw dama laalaat tuuti ci dóor daa rëy na waaw dama defoon nuur daaneel la ma jox si xawlu ma ko bu baax <laughs> nee nañu sooy amee aajo di ko jàng soo ko jàngee bij ba ci bijjaahi jibril su suaali wa balixani mablaxa rijaali nee na yéegal nga ñëwati ba foofu yéegal ba juróom-ñaareel yoon bi nga àggale ko kooku xajul ci ajo te diggante wasalliyan wasalliman ala nabi wa alihi ashaabi najbi waxfir li walidaya waxfir li jamia ahli wa jumlati ashaabi ya samia waxfir li kulli di taalluqi biya wa xaqiqati saadati ya rabbiya waltuf bina wa qawina wa kullana wa hablana xusnal xitaami rabbana wasalliyan ala nabi wa salli waqdi bi xaajatu kulli muslimi sooy baamtu bay am yaat yooyu di nga teel làqu mbootu xasida gi te ku làqu mbootu xasida wax naa léegi cër bu ngay am ci suñu borom jigéen bu koy jàng tollu ci diggante di ko jàng di ëf ci ndox di ko naan insha allah dana am gone ci jàmm alhamdulilah alhamdulilah wallaay wallaay wallaay alhamdulilah alhamdulilah waaw parce que baax na léegi foofu ah Nourou bi ma ko néew <laughs> nuuru daaree ni xam nga majmaaw la ahmadu moxniyan mi ngi ci biir ahmadu moxniyan quatre-vingt-dix-neuf ab yaat la moo jàppale quatre-vingt-dix-neuf noon jë te it bis bu nekk sëriñ bi dëkk cee tudd te ñaan ci bis ba kuy jàng ahmadou moxniyan wala ngay jàng nuuru daaneen daa dem ba xam la secret des jour ndax bis bu nekk dafa am secret yi ci dox am na jinne ju koy doxal am na malaaka bu koy doxal am na turu yàlla bu koy doxal te loolu yëpp daan la ko xamal daan la xamal ci bis bi waxtu yu leer ba nga xam ne waxtu yooyu su jotee da ciy ñaan yàlla daañ la xamal bis waxtu yu leer ba xam ne waxtu yooyu su jotee doo ci def dara kuy jàng ahmadou mu de moxniyan daa dem ba xam waaw te bis boo ci kay yàgg ba jo àgg ci mbéyit ba sëñ bi du bés bés def ko 99 fois àggale loo ci ñaan suñu borom bi defal la ko incha allah yaa sayidi soo koy jàng maanaam xam nga duñu wax ni yasur soo koy jàng yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dalay xool di jaayu di muuñ jës bu soo koy jàng yonent bi dalay lëng waaw day teew saa yoo àggee euh, bay bi <laughs> déedéet déedéet déedéet salli ala salli ala lay sin shafa ba washkur salaati ala diggante boobu sëñ Ablaan wax na ni saa yu yéen kay jàng ba àgg ci diggante boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day teew ak xulafaawu rachidin feek jógee foofu duñ fa jóge saa yow génnee foofu ñu dem nee su teeyoo nag da lay lëng di ànd ak yow di jaayu di muñ yaa sayidi nag soo koy jàng da def sa doom di ko yëkki di ko tëgal di ree su reeyoo nga ree noonu la lay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def daj dëpp gi nag mooy maam Cheikh Ibrahima Fall xam nga duñ koy wax baabullaahi ak sore gis nga dafa am pays yàlla yoo xam ne soo jegee mulk ak malakuut ak xaa idoog jabaruut ak laahuut ak soo jegee pays yooyu ba dem pays xut si nga xam ne ñaar fukki pays la ak juróom-ñett soo leen jegee ba dem am na pays yu sore yu nga xam ne pays ba nga ciy jëkk jot bunt bu ci nekk ndax foofu wëlu yu bu fi yegg du benn bunt la waaye ku fi yegg sa borom dalay sàkkal bunt booy jaar wëlu yu bu nekk bunt bu lay jaar bunt bu nekk di ci bind laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah nga xam ne saa yoo témbee ci tàmbee ci pays boobu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah loolu ngay kii ñooñ suñuy toog comme nii ñuy kuréel leen noonu lay wëlu yu di toogee nga xam ne ku nekk day gis moromam laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah ba fees del dal jàll si daaru dunya nee nañ ku fa jógee pays ba ca topp daa dox juróomi téeméer at ci doxinu gëléemu tukkal pays boobu soo fa àggee yàlla nangootul ñu koy tudd di tudd keneen foofu laa ilaha illa allah rek moo fa am soo fa toogee laa ilaha illa allah ngay wax ba jeex ba tax ba fees del dellu si daaru dunya soo fa jógee pays ba ca toppati juróomi téeméer at nga koy dox ci doxinu gëléemu tukkal foofu yàlla nangootul ngay dàq di saxal jërëjëf yàlla nangootul ngay dàq di saxal foofu illallah rek ngay wax illallah illallah soo koy tekk mooy yàlla képp kott dong foofu it pays góor yàlla bu nekk ak buntam la soo fa jógee pays ba ca topp juróomi téeméeri at ngay dox ci gële doxinu gële bu tukkal foofu allahu rek la ñu bind ci bunte kon soo fa duggee allahu ngay wax allahu ha googu nag mooy riiral dëndu góor yi foofu ku fa toog di wax allahu ba fees del da ngay dellu si daaru soo fa góorloo ba sa Pastef may la nga jéggi pays boobu pays ba ca topp dootoo sañ te juróomi téeméer am na ci doxinu gëleemu tukkal foofu bàyyi tuñ la da ngay tudd tur yàlla huwa rek ngay wax huwa moom huwa yaa huwa yaa man laa huwa illaa huwa yaa man laa ilaaha loolu rek ngay wax soo feesee del dellu si daaru dunya léegi nag soo boolee juróomi téeméer at yooyu yëpp mu deen benn distance nag ba nga xamante ni mooy pays bu mujj ba nag foofu benn bunta fa nekk te soo ñëwee kenn moo lay visité seet na nga mën nga mooy maam Cheikh Ibrahima Fall leen woo tax ñu koy wax Baabullah waaw mooy seet góor yàlla bu mu natt xam ni fii waroo fi dugg mu delloo la góor yàlla bu mu natt xam ni fii war nga fi dugg mu bàyyi la nga jàll foofu nag soo jàlloo wax amatul dootul zikr extérieur waaye zikr intérieur la dootoo waxati muy génn waaye da ngay wax di ko wanaasu nga xam ni tekk ngay def bari boobu amul wax amul yëngu amul jaayu yëpp tekk lañoo def ba fees dell daal dellu si daaru dunya loo wax ci muy muy mu yàlla soo ñëwee nit fekk la bett la ngay wird sax mën na ni dafa dof ndax su may toog di wax yaa micro yore micro di wax yaa micro di ko xool xam nga kuy day wax ne ah waa ji de dox na micro laa fekk muy kii te fekk miim gi maliku la keef gi kaafi la raa gi la nga xam loo waxti ci yàlla la loo wax ci suñu borom loolu mooy tax ñu koy wax baabul laay ndax buntu boobu la nekk moo tax Cheikh Ibra fu koy gars yi di teg weesu na foofu waaw sunu sunu wëy sunu maam ji tedd ji dafa di indil naa leen mbër xaw ma fu muy bàkku bon bàkku bàkku Cheikh Ibra dafa xaj àddina xaju fi lu mu fi def mooy lu mbër di def rek ñëw ci làmb yëkkati ñaar loxo supporters yi daanu loolu rek la def gaa yi di tëb di dal waaye bàkkoom yowmal xiyaam la su nit ak jinne taxaw sunu boroom taxaw ak malaaka yi ñëpp taxaw foofu nag lay bàkkoo te ña koy dar mooy aliit yi muy ay malaaka rek kay dar ña koy tëggal mooy góor yàlla yu mu kii ba ba ba teg leen fa waaw ñoom ñoom euh, yaaram mbay ak ma sa waa baay Cheikh ñoo ñëwee ñoo koy tëggal te benn la galen la jëf rek a takk waaw korona la wane nag jëf rek a takk waaw Cheikh Ibra bokk la gaa yi lu ñu koy yëg Baye Malick Fall bi nekkoon fii Yoff wax na ma ni ma ànd ak Khadim Gueye ak Lamine Cissé mu ni bu may ànd ak sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima boobu tam ndey ak baay amagul woon te su daan ànd di dox suñu service su borom yi sëñ bu mag mi mooy jiitu Cheikh Ibrahima topp ci ma topp ci nee na ñëw nañ ba tiim xur wii léegi laa ko xam xam ne ndakaaru la woon mu lëndëm lool am ay jinne yu soxor yu fi nekk ma daal di xur wii que lëndëm ci sama xel nee na Cheikh Ibrahima fett suma daal di yokkal jéego yi nee mooy ma yokki jéego ba yem ak moom xaw a yem ak moom mun ma xur wii ngay wax ak lëndëm de daañu dem ba ndey baay am nga wàcc fii ñëw ci xur wi di fi liggéey sëñ Bamba kon Cheikh Ibra ki kay xam mooy ki nga xamante ni jiitu nga fi ndey baay waaye ki nga xamante ni ci ndey baay nga sosoon umpale nga Cheikh Ibra ko genn góor la waaw wax Serigne Touba amul morom lu xaraam la kenn waru ko ndax Serigne Touba moromantewul Cheikh Ibra moo amul morom waaw kon nag wasalaamu aleykum <laughs> ndax xasaa yi kat gars yi war a jàng